weesu ci ab communiqué boo xam ne rek moom la ñu daal di fësal ñoom waa Petrosen Holding ña ngay xam ne nag nekk si na ci toolub GTA bi ginnaaw juróom benn fani voyage yoo xam ne rek amal na koo daal di départ ci île bu Canary ña ngay leeral ci boobee communiqué nag solo si nga xam ne rek am na ko ci production bu gaz ci projet bu GTA bi nag l'observateur faylu ko ñu ñu war a jëfandikoo nag champ gazier bu GTA bi nag yegsi bi nga xam ne rek unité boobee yegsi na ko ci barab bi nag mën doon ay jéego yu am solo ñeenti weeru test nag fas yéene nañ koo amal laataa ñoo démarrer li nga xam ne rek moo jëm ci wàllu production bi yéenekaay bi fell ko ne lu ñu mel kay nag dina doon ab jéego bu am solo ci wàllum industrie minier bés bi le jour xëyee tey jii nag lu jëm ci rapport yi nga xam ne rek moom la ñuy fësal jëmale ko ci ministère bi ñu dénk wàllu napp gi yéenekaay gi ne mbaal bi moom ma ngay wéy rek di napp ay jën njiital division de pêche artisanale moom nag jamono ji tudd nañ ko ci ay absence yoo xam ne rek kenn justifié wu ko ba noppi ñu daal di koy rémunéré ñaari atu yàlla mën naa génn réew mi di doxi ay soxlaam ba noppi di wéy di jot ab salaire lu ñu mel nag tax ba cour des daal di interpeller direction commission bi nag ngir mu daal di leeral lu ñu mel laas yëglekaay xëyee moom itam ci li ñu war a càmbar licence ak accord de pêche yi nag ne ñii di waa GABS ña ngay nga xam ne rek wàllu napp gi fii ci Sénégal daje nañu ci samedi ji nag addu jëmale bi nga xam ne rek moom la gouvernement bi taxawee ngir mën a suqaliwaat nag secteur boobee ñu nekk jaarale ko ci lijjanti nag lu jëm ci wàllu licence ak accord de pêche yi bu ñu sukkandikoo ci Alioune Thiam xam ne rek moo leen jiite ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne initiative bi nga xam ne rek moom la ngurug Sénégal bëgg amal ci wàllu napp gi nag dafa yegg si ci waxtoom leneen loo xam ne rek jamono ji ñu ngi koy xaar te enquête yëglekaay xëy àddu ci jëmale nag bokk na ci yeexaay bi ñu nemmeeku nag ci nomination yi nga xam ne rek moom la ñu war a amal ci cabinet ministériel yi nag yéenekaay bi ne état bu Sénégal nag fi mu toll nii moom la ñëpp di xaar ginnaaw benn weer a ngi nii nag ba ñu taxawalee seen gouvernement ay absence dëggantaan la ñu nemmeeku ci cabinet politique bu président bi nag ay bureau yu daal di koy gisit foofee ca primature l'observateur feelu ko xëyee tey ji nag ci bor bi nga xam ne rek moom la digoon producteurs yi semenciers yi nag ne dina leen ko fay yéene bi ne ab délai mu di fukki fan ci weeru mai nag ci la premier ministre bi xamle woon nag ne dina fay bor boobee nga xam ne rek moo jëm ci producteurs yi waaye ba fii ñuy àddoo nag loolee gisaguñ ko waral ba yëgle bi nag ne boo moytuwulee bor boobee nag dana jur ay yéexaay nag jëm ci opération bi nga xam ne rek moom la ñu war a amal ñeel campagne agricole bi ci biir yëgle bi yi garantie producteurs yooyee nag dinañu amal ëllëg ab ndaje ci seen biir point acti moom it def taxaw seetlu nag ginnaaw benn weer boo xam ne rek ci la président Bassirou Diomaye Faye def ci bopp réew Sénégal yéenekaay bi ne CCR ak amadu maam Diop nag ña ngay toog rek di xaar nag ngir ñu daal di sàmmoonteeg seen i kàddu te mooy wàññi nag lu jëm ci wàllu dund gi Moustapha Diakhaté di xam xamle ci biir yëglekaay bi di point actu ni projet bi nga xam ne rek moom la ñu tegal askan wi escroquerie dëggantaan ak arnaque politique la ñii di cadre républicain yi nag di fàttali gouvernement bu Sénégal rendez-vous rek da koo joxe woon mu di fukki fan ak juróom ci weeru mai atum mille 2024 ci jëfe lépp loo xam ne rek moo jëm ci ay mesures yu mu jëloon ci wàllu dund gu cher gi ngir askanu Sénégal mën a noyyiwaat mel ni ku leen tontu nag ci biir lekkaay bi di point actu Boubacar Camara nag di xam ne ni daal lëkkaloo gi nga xam ne rek gis nañ ko ci diggante Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye fay mel na ni nag ci yoonu coppite la ñu nekk dafa am ñoo xam ne rek dañoo bëgg ay détails li ñuy xaar rek jamono ji nag mooy am ba ñu am lu ñu wax Boubacar Camara ba tey ci l'info yëglekaay di fa xamle itam nag ne faaw rek ñu daal di xam ne kenn mënta nekk ci sécurité fileeg rek yéen a ngi laal moomeelu askan wi Sud Quotidien xëyee lu jëm ci wàllu Prodac ak procès en diffamation ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang yéenekaay bi nag ne Cour des comptes jamono ji nag ma ngay ubbiwaat boobee dossier enseignant chercheur en droit pénal di Ousseynou Samba ca UCAD ma ngay leeral nag lu waral ñu daal di ubbiwaat bi le dossier Jean Pierre Senghor ma ngay taxaw jamono ji nag ngir leeral lépp lu jëm ci scandale financier boobee nga xam ne rek moo jëm ci yorinu Prodac lu jëm ci yooyee rapport les éco yëglekaay moom ma ngay xam ne nag ne Cour des comptes ma ngay fësal nag atum 2012 jàpp 2016 rëq-rëq yi nga xam ne rek nemmeeku nañ ko ci commune bii di Dakar Plateau yéenekaay bi ne doxalinu Alioune nag taq na rip ginnaaw bi nga xam ne rek lu toll ci 423 millions ci wàllu bénéfice yoo xam ne rek kenn identifié wu ko ci wàllum aji màkk gi ñu doon amal ay payoor yoo xam ne rek dañu koo jëmale ci ay avocat yoor yoor feelu ko ne Cour des comptes kay jamono ji nag ma ngay dellu siwaat ci yorinu bon wi nga xam ne rek moom la Alioune Ndoye yoree woon Dakar Plateau les éco yëglekaay des ba tey ca la nga xam ne rek mooy mbir mu doy waar mi xew ca LONASE yéenekaay bi ne Mamour Diallo ma ngay bàyyee patate chaude bi ak kii di Cheikh Dieng fanweeri million ci suñu xaalis moom lañ daan dugal ci wàllu conférence religieuse yi 80 millions ci wàllu arbre de Noël yi 92 million nag ñu daal di koy dugal itam ci wàllu colonie de vacances yi source aani ko kaay ma wax la daan pàccoo boobee koppara bu fekkente ne da ngaa am dese nag daañu la jox 250 000 bu dee ab agent bu wàññeeku nag 500 000 la ñuy jox njabootam lu jëm ci wàllu prêt yi nga xam ne rek moo soxal personnel bi nag kenn dina am enveloppe bu toll ci cent millions ab budget bu toll ci deux ñu daal di koy dégager nag ci atum deux mille vingt trois mu jëm ci wàllu IPM yi cinquante ñu daal di koy génnee atum deux mille vingt trois nag jëmale ko ci ñi nga xam ne rek ñoom la ñu daan sant liggéeyu salte yi lu jëm ci wàllum consommation domestique ci wàllum ndox mi nag quatre vingt millions lañ ca daan dugal budget bu arbre de Noël bi nag toll ci quatre vingt douze millions nag lu jëm ci aji màkk yi ñu daan amal nag juróom benn billet daan nañ ko génnee kenn ku ci nekk ñu tegal la ci cinq cent mille lu jëm ci conférence diine yi nga xam ne rek daan nañ